te kedure Jangan tepo akrela Boganye fo akrela Bonya tepo akrela Lepeji fo akrela Wila ganye Boko ganye dalale Jangan tepo gaañee boo ko gaañee daalal ak ree boo gaañee foo ak ree boo ñàkkee foo ak ree lépp ci foo ak ree la buñ gaañee boo ko gaañee daalal ndijaay kontaan naa si yow hmm. rawatina démb hmm? démb laa gën a kontaan ci yow hmm. ndax démb sa conférence ba de am na ku yëkki kàddu ne yaa ko yónni ngërëm si man dama siggiwaat bégaat kontaanaat te tey jii di ma gën a yokk jom gën ma yokk doole tey ji si kër gi li ma la gën a mën a jàppalee dinaa ko def yaay awo yaay ndey jëkkër kontaan goo kontaan ci man kontaan naa ci yow lu góob ndax xam nga li tax ma wax ko hmm? góor génn dem liggéey sàkkub dépasse la man waaye neex ga ak bari ga buñ ko mën a lekkee ak kanam ga loolu jigéen ju baax la ndax sa nekkin ci quartier bi moom nga nekk ci kër gi sa nekkin ci kër gi moom nga nekk ci dëkk bi toppatoo nga xale yi toppatoo nga ma yow daal yal na yàlla guddal sa fan su ma amoon xamoon leneen it danaa la ko wax ci lu baax yow yaay awoon day jëkkër sa rakk yi nag bëgg naa ñu topp la. loo gis loolu ci nett lay mujj waaye daal óoma lu may rëcc ci yow yéex naa koo def moo ci am wala yéex naa jot ci yow waaye rëccu ma dara ci yow ah. noo def. yaa ngi ñàkk sikk. mag sama kontaan ci yow. maa la gën a kontaan kontaan naa kontaan la gën a kontaan ñaan kontaan. yaa ngi. buuru këram ni man bu ngeen dee def rek damay di gën di belli gis nga gis nga àjjana. moom it yéen yéen moom seen ànd bi yàlla na ko yàlla dëgëral. na leen balance bi rek lay def. bu ne ba nga ni la. mu ni waat ci man lay non bu yow ci lay xam dal ci man mi lay wacc re ji ñëndi re di waxtane ko ni te yokku fan. waaw yalla sa fan yok amin yalla defal la wër yalla na leen yalla yagga sama kanam. contane na balance bi dal balance contane na kontaan naa <laughs> kontaan naa kontaan. Mhm. amiin jërëjëf ci ñaan yi. allo jërëjëf maaleykum salaam. jërëjëf ni dama koy bëgg. bëgg naa lii. lii bëgg naa ko. ah d'accord meeting bi am solo. góor la waaw d'accord xaar ma paas la sama nijaay nga wax ak moom nijaay am wuy. salaamaaleykum. ah. demut. génnut kër gi demut. kii sama bos la. seeti leen ñeneen wala ngeen làmbi keneen kii bokku ca. génnut kër gi. allo. nii dama koy bëgg. waaw nijaay. dox doxalin nijaay ni nga waxee kii foo ko teg. ni mu waxee rek laa ko tontoo. nan la waxee ak yow ni nga waxee moom moom dara rafetu si. Ah. nijaay man sa nawle laa. man sa mm. nawle laa. nawle moom daa war a jëf ñu koy nawee. am na yoo xam ne moom rafetul. daa war a jëf luñ ko am na yoo xam ne. Hmm. rafetul ma fii waaw bu la conférence nga bàyyi ko. bu la nga bàyyi ko man ma bëgg dem. politique nga ne ma dem tegoo ko fenn fenn nga ko tegoo. politique oto bu paan la. ne kaay leen poussé bu bu tàkkee ñu dem bàyyi la ëllëg fii lañ lay romb aj seen i weer tontu tontu yooyu aj ko la naan la am na ñu baax ni ñoo naan la nii waaye ci la ñeent yomb ñëpp

waaye booy génn wutal lu ko xaw a tiim. la domicile. domicile lan. Hmm. domicile la. Hmm. suñu meeting bi waxoon naa ko démb si guddi si néeg bi la ngaa fàtte xanaa. mi min lan. kii la nekk te yow yaay kii dem nag. maa ngi lan. kii dem. ñun ñooy dem. ñun ñooy dem yow kuy dem. ñun yow. bu la nee day dem. Hmm. dalay nax ay waxam la. ajjana paradise nday jëkkër. dañuy àndandoo dañuy dem waaye duñu àgg duñu àgg mooy lan yow fenn nga demul mm. yow ah, aw yaay mm. balaa wax ci ëpp dool ma fiy noquli waxala sa lii sama jëkkër laay waxal ndijaay may mm-hmm. ma ma waxaat ñaan ñi mm-hmm. gis nga yéen ñaar seen yi ngeen nekk nii seen fi ñàkk fayda yi man ma si gis nga yàlla binduñu si ay caaxaan tax ndijaay man maa ngi yegg si biir sax noppal la boo demul fa ah, moroom dem nga yow mm-hmm. seytaan nga rambaaj nga te mérite ko dubbala bëgg mu dakk jëkkër gi li fi am laa fi dëlwal jëkkër nga fi am jëkkër laa fi am am naa droit dem midi ànd ak sama jëkkër dégg nga ñàkk si waaw déglu ma ñàkk si kuuy ma léegi ajana ñàkk si xam nga lan dañuy dem waaye duñ àgg ñu àgg mooy lan yow demoo. yow foo yow ma ki déggoo ñaar nga fi ñëw. waaw ah, déglu leen ma. damaa xam sa démb nag xam sa tey. fii góoyoon livre am sa dictionnaire man a respecté du ma ma sa bopp. il faut teg da nga ne kii du dem fan nga ko teg yow yaay kat. xam nga waxuma yow. xam kër gi dem kër gi da nga fi am jëkkër. mu am fi jëkkër ji jenn la. maa ngi nii nga naa féex nga eh nijaay jaay kii maa fàtte. ñooy dem. eh néeg bi. demoo demoo fii nii ku am nga déglu. kii. mooy kii dem. mën na la demul fan na la demul fan na la demul ñun ñooy dem. di xaste ka doore jongante foo après la boo gañee foo après la boo ñàkkee foo après la lépp ci foo après la buñ la gañee boo ko gañee daalal jongante foo dalam Boganyi dalam Jangan tepo akrela Boganyi po akrela Bonya tepo akrela Lepuji po akrela Wila ganyi Boko ganyi dalam Kay, ah, kontaan na nii bu ngeen koy def hmm. xol bi day gën di gundaandaan damay belli kontaan nga ñàkk sikk déggal li su paradise yow boo kontaanee rek ñu kontaan mooy sama mag na fa toog ci ay tànkam waaw nii bëgg naa ko mhm. waaye yéen ngeen yeggoon nii fan ngeen jógee meeting lañ ci suñu meeting bi hmm. mooy bi ma la doon wax noonu waaw léegi yow ki nga àndal lan la la wax

ñi ngeen àndal ñëpp ci njur njaaj lañ nekk. Hmm. dañ leen di fooy dañ leen di nax. Ah. ndax xam nga lan la nit ki booy ànd ak moom bokki coow li xam li xew da koo gën a wóor. lan mooy rôle député. wax nga yaa xam lépp ca pencum ba ca pencum ndaw réew xam nga lan mooy euh, lan mooy rôle député. Hmm. ah. waxal mooy que ne ca gox ba nga ne bu fekkente ne biir Kër Masar gi ñu nekk man bu ma fi teewalee Kër Masar lépp loo xam ne jafe-jafe yi waa doomu Kër Masar la. dama ca dama ca war taxaw kassal len ba ñu mat way suma len ne suma fi ba pare ne len ah kuppe coupentum wala tëngeej lolou waxuma deug damay wax lu len neex rek waaye la nga xat fi ma ñor keur ma sar gi nga xani mom mom la deug te fi la yewoo léegi lepp lo xani seen jafé jafé war naa ndaw yi dem la nga xani moy defar koku walu état président wala maire ba. nejay hmm. bu fen de am. Hmm. parce que ki moy fen.

fen rek. Eh. yéen ngeen xam ne dañ leen di meeting loo 5 heures ba 2 heures du matin. ci ay fen yi neen. ñu fenee leen ko yéen yéen en député yi ak ak defar ay ay UGC. waa déglu leen waa déglu leen waa déglu leen ma. yow yow eh. mën naa naa la nga ma xale bu ndaw. waa déglu leen ko ci man. mën na la jéem ko da nga jur ba jéem ko nga jéem ko. je eh, gère je gère. man de ñaa UGC. déglu leen. non non. mais lii la. kii dafa leen laaj seen seen kàddu. ah. lépp moom la kii mooy eh. seytaane kii kii yow yaay rakam. xeesaay bi. àjjana yow yaay rakku ñàkk sikk kon nag am na loo xam ne warut am seen diggante. moom moo ma tooñ ni yaay. moom moo ma tooñ. ñàkk sikk du noonu de. Eh. man ngay waxal wala kii. Hmm? Eh, nga waxal wala kii. les petits vont à zèle, oui, la gagné, Boko gagné, c'est que doré, John Tefo Eji for arela Wila ganye Boko